alhamdulilahi rabbil alamin euh, ginnaaw bu ñu sante yàlla des di ko sant di julli si yonent bu tedd bi moom sallallahu alayhi wa euh, fas yéene màggal guddi gi euh, ni ko professeur Babacar Kake ci gine waxe woon jaare ko woon ci ay kàddu Cheikh Ahmad Bamba dafa waxoon ne guddi dootul gën màgg guddi juddu yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla moo célébré yonent bi d'abord dans le Saint Coran euh, ndax moom moo ko wax baatu iqra soo demee dans les dix-neuf les dix-huit premiers versets de l'évangile selon Jean dafa wax au commencement était le verbe le verbe était en Dieu et Dieu était le verbe euh, nga dem ci alquranu karim yàlla indi baat bi njëkk ci alquranu karim mu ne iqara lii mu nekk une grande confirmation te kan lañ ko waxoon ki demoon ci xuntu xiiraa muy yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam moom encore da yàlla wax ci alquran wa taxsha naasa wala wa xaq an taxsha euh, moom suñ borom moo dox ci diggante bépp noon bu jógoon ngir faagaagal gën ñi mu def mais li yéeme ci ki ñuy màggal tey mooy lii nga xamante ne persécution yi lu mu tar-tar ci biir Màkka bi mu nga xamante ne woote na bi mu amee ñeent fukki at euh, moom euh, mbégte mosul jóg ci kanamam lu persécution yi tar-tar luñ ko fitnaal fitnaal lu mu kawe kawe moom sallallahu alayhi wa sallam mosul jóg ci ci pardon moo tax tey suñu thème mu euh, célébration la naissance du prophète alayhi salatu wasalaam ñu ngi ko jël axé ko sur la paix et le pardon ndax defe naa ne mooy moteur bi nar a jëmale àdduna kanam kooku la ñuy célébrer ki ñuy célébrer tey encore mooy ki nga xamante ne moom la yàlla waxaat ci alquran wa najmi ida hawa ma dalla saahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuxa moom sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla waxaat encore subhaana asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa alladi barakna xawlawo li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir moom sallallahu alayhi wa sallam moom rek la yàlla may mu dépassé le lotus des confins mooy sidarat al muntaha moom rek la ko la ko la ko sunu borom jagleel ci tukki bu tedd bi isra wal mihraj moom sallallahu alayhi wa sallam moom rek la yàlla santoon sallallahu alayhi wa sallam mu mu jot téere bi gën a tedd ci téere yi muy alquranu karim moo tax tey ñu célébrer juróomi mbégte benn bi subhanallah la beneen bi walhamdulillah beneen bi wallahu akbar beneen bi nekk wala hawla wala quwwata illa billah loolu lañ nar a tey ci biir tànt bi mu nekk bisu mbégte moom sallallahu alayhi wa sallam moom tamit moom la yàlla jagleel a shafaatul uzma mooy la grande intercession est entre les mains exclusives du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kii lañu na la a tey moo ma sànni ci kàddu yu ndaw yi rek di di sant nag ñi nga xamante ne ñooy gan yu tedd yi ñëw sëñ Assane Mbacké euh, ñëw na ak euh, mbooloo mu am solo ñëw sama wóllëre la ànd ak ay rakkam ak seexam soxna Assou Mbacké mi ngi ci yoon bi di si ak ñeneen ñoo xamante ne ay kilifa ñu ngi ñëw ngir ànd ak ñun célébrer ndoo guddi gu tedd gi di guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam. kon ak développement doon na moteur ak pardon. pourquoi le pardon dañu wax ne que euh, soo gisee toujours conflit di am parce que il y rupture de dialogue. moo tax ñun depuis le début ñuy commencé di di prôner pour que nit ñi di waxtaan saa su ne. pour que ñu bañ dem ci rupture de dialogue. parce que su amee rek. Euh, dëkk ba dafay daal di dafay daal jaxasoo rawatina jamono ji nga xamante ne ay teraanga yu am solo feeñ na ci suuf si waaye damay faral di wax ne il faut que ñi nga xamante ne ñoo ŋànk république comprendre ne mag ñi salaatu ala nabi ñu fi daan def di ko bind ñu mel ni Cheikh Ahmad Bamba ñu mel ni Cheikh Seydi Hadji Malick Sy yooyu moo tax suuf raisonné ba tey euh, or euh, pétrole gaz daal di commencé di bal ndaxte suñu xoolee 50 eh, ans ci ginnaaw amul woon ci suuf si dañuy dox ci suuf di def rotation fu ñu déggee tagg yonent bi mu dëgër rek dañuy daal di taxaw foofu te suñu fa taxawee dootuñu jeex mukk moo tax ma wax ne lu mel noonu di waaj feeñ eh, mel ni luy waaj a eh, suqali suñu réew dafa jot waxtaan dafa jot aussi ñi jiite am intelligence su it ut ut une cohésion sociale ak une politique boo xamante ne mooy permettre li nar a feeñ ci suuf si dellu ci askan bi nga xamante ne moom lañu mag ñu baax ñi ñaanaloon ngir ñu nekk ci naataange te seen ñaan yàlla du ko delloo mukk ndax ci Ahmad Bamba waxaan ko ci mujjanteelu jamonoom ci njaareem dafa wax ne talabtali rasulullahi fawqa matlabi min allahi rabbi wa rajala min xeer mu ne ay yàlla fàggul nga ma ci sama borom lu kawe sama njot te sa benn ñaan yàlla du ko delloo ñu ne xanaa Cheikh Ahmad Bamba grade bi mu am bu xaadim rasul lay wax ñu ne non bi muy bind bayit boobu fekk na mu am ko lan moo taxoon mu wax loolu si tànt bi lañ koy yeggalee incha allahu taala jërëjëf